leen ko waxee rek tey ñu ñëw daal di découvrir li nga xamante ne mooy centre formation gardien de but bu Kana double zéro euh, tey aussi ñu nekk ak le coach Aline Badara Sow mu nekk le coach adjoint moom nga xamante ne tey moom liggéey moom moo ko feggoo ak ki nga xamante ne mooy Kana coach Aline Badara Sow nekk coach adjoint coach ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di ziar doom ndey maa ngi leen di ziar bu baax a baax waaw di kontaan seen di con am contentement seen seen seen teewaay fii nii bon ñun ñu ngi nii daal gis nga ko mooy li ma doon wax léegi léegi. liggéey moo ñu soxal ci lañ nekk naal wax wax dëgg yàlla. Mhm. Ah, coach également tey mu nekk aussi ñu yow fekk la ak xale yi ngeen di liggéey mun nañ xam centre bi tey nan la centre bi tëddee. waaw centre bi de ni mu tëddee defuñ ko pour rien que pour dimbali xam nga pour dimbali sénégalais yi nekk fi parce que boo xoolee tey ji dafa bëri ay manquant yi nga xamante ni surtout côté camp ñuy naan Sénégal amul góol amul góol mais dañoo xoolul nag parce que nag gars yi gis nañ liggéey bi quoi franchement te liggéey ba moo ñu yëkkati quoi. boo xoolee centre bi bi mu ubbee ba léegi c'est la première fois nga dégg fi centre xam nga formation de gardien de but kon donc dañ koy rafetlu xam nga am na yeneen centre aussi yi kii mais boo xoolee tey centre bi fii nii bon boo xoolee kenn kuñ ci nekk danaan centre formation centre formation de gardien de but bu bu xalaatee danaan bon nañ dem fële géejawaay centre formation baa fu noonu voilà buñ ñu xoolee aussi sa morphologie mu ñuy jox ni rek nekk nga benn sportif bu mag euh, gardien de bii nga woon ak fan nga mos a joué. waaw waaw loolu dama ci aussi sawar quoi parce que boo gisee tey jii sama carrière xaw a à cause de blessure la mais bi mu amee ba léegi xam nga bàyyiwuma quoi ñun football moo ñun xam nga football moo ñu noot quoi bàyyiwuñ bon def naa pas mal de club nag quoi Zia la formation Zia laa jógee xam nga def naa petite catégorie xam nga fala terminé aussi xam nga <coughs> def naa fa euh, fa laa commencé cadet junior. espoir senior xam nga génn fa def naa duc def police xam nga def Cambérène xam nga def euh, ci la mujjee ak étoile xam nga obligé après ci la obligé doon xam nga dem def formation bi commencé nekk si liggéey bi quoi. Hmm. ñu gis aussi centre bi ni ko xale yi taamoo ba ñu si bëri bu ñu bëggee forme am benn yokk seen niveau perfectionné wu dañuy ñëw fi nga xamante ne mooy centre de formation gardien de but bu Kaana lan moo tax euh, xale yi daal di taamu centre bi lan mooy secret bi ah waaw secret bi fii moom gis ngeen ko yéen a gisal seen bopp fii moom amul leneen liggéey rek moo fi nekk liggéey kese moo fi nekk parce que gis ngeen boo ñëwee léegi ñun man dama jàpp ni boo boo boo bàyyi xel ci lii yow yaa ngi bàyyi sa liggéey quoi ñun dara ñoruñu liggéey tey ji euh, njiit day nuroo day nuru day nuru borom quoi xam nga liggéey boo gis ni boo ci amul caractère boo ci amul flag fayra du du du du jaar yoon moo waral ñu dem moo tax kenn ku ci ñëw fii bu liggéey tuuti bu gisee liggéey bi su demee danaan man kat fi ma neewoon ak fii nii peut-être dina am différence bàyyil ma dem looloo tax taamu bi xale yi taamu kii di entraîné fii <coughs> parce que gis nañ sax d'habitude bëri na centre yoo xam te ne tey bu fa coach bi nekkul travail bi du am sérieux mais gis nañ sa waay nekkul mais booy jox nañ la cër liggéey bi lépp mi ngi jaar ci yoon loolu aussi lan moo la ko may sa diggante xale yi waaw loolu aussi dafa nekk loo xamante ne dam ciy rafetlu sax di wax parce tey ji xam nga yàlla day boole ay nit te yàlla bu boole ay ñaari nit yoo xam ne ni ñoo bokk liñ gëm bokk bokk bëgg-bëgg bokk philosophie de travail nga loolu moo indi lii quoi parce que mooy waral tey ji même ñun moom ni comme ni nga ko waxee bu mu fi nekkul kaa neew baax parce que lii boo leen dañ leen teg ci raay boo xamante ne nii xam nga même les anciens yi nga xam ne ñu ngi si biir groupe bi boo leen waxee tey séance bi suba nii la nii lay deme bu ñëwee ñëpp noonu lay demee parce que kenn ku si nekk day bëgg a day day bëgg a jaar yoon ba looloo tax tey jii fi mu nekk nii liggéey bi jaar nii mel mel mel lu am sérieux quoi. bu ñu demee aussi ci wàllu module d' entraînement yi mooy façon entraînement yi ngeen def nan ngeen ko répartir semaine bi nan ngeen di liggéey ba semaine que boo xoolee début semaine bi saa parce que boo xoolee tey jii ñun bu ñu bu lundi eh, may pause mardi mercredi ñu ñëwaat parce que étape par étape lañ koy def parce que boo ñëwee tey début semaine bi xam nga ak ak ak ak ak ak sportif bi nu mu nu mu nu mu demee récupérer deux jours yi su ñëwee il faut nga yee yaram bi ba pare commencé ci liggéey boo xamante ni tey jii moom fépp fa la taxawoon. parce que am na débutant yoo xam ne bu ñëwee comme ba comme basage bi mi ñuy commencé ay ramassage prise de ballon yooyu noonu mais aspect yooyu yëpp dañ ciy gën liggéey di ci kii quoi moo waral tey ji boo ñëwee ni chaque vendredi nag ëpp doole bi technique bi mooy ëpp technique bi mooy xam nga moo waral tey ñuy def nii génne leen après génne leen ay quelques séances pour ngeen xool quoi. waaw coach mënuñu bu ñu waxee sport entraînement wax récupération mais également mun ñu bàyyi alimentation ci wàllu alimentation li nga xam te ne moom la xale yi di jëfandikoo est-ce que di nga faral di leen digal ci côté boobu. waaw surtout parce que tey jii ñun yemuñu ñun yemuñu rek ci ñëw entraîné booy après ñu bàyyi leen nga parce que boo xoolee ba fii nii fii nee nekkul sax mais hôpital la d'abord ba parce que di nga gis ñoo xamante ne tey bëri na ñoo xamante ne ñu ngi ci mbedd bi tey di taxawaalu mais xam nga yàlla dinañ dimbale tey ñu ñëw fii bu ñu ñëwee fii def seen bopp ni ñoom ay sportif lañ ay góol lañ yemuñu foofu rek aussi dañ leen dimbale aussi ba ci parent yi defam am parents yoo xam ne aussi dañuy ñu leen di woo xam nga di woo di woote fu nekk naan ñoo ñu ngi ñu franchement ñu ngi rafetlu lii parce que sama doom ji bi mu commencé foofu ba léegi gis naa ni léegi daf leen jox cër jox ci di teel a tëdd di teel a di teel a noppalu luñ ko wax léegi loolu lay def parce que ñun yemuñu foofu rek benn gos bu ci nekk dañ lay topp ba sa ba sa ba sa ba sa que nit ki tam boo yoree doomam il faut mu xam ne aussi doomam tamit ci lii la nekk quoi mi ngi mel ne nga bàyyi sa doom mu dem école ba xam nga sa xel day daal foofu quoi noonu la fi demee fii centre bi waaw parce que dañ gis ni pratiquement bu ñu nee gardien bi foog mu am benn souplesse moom yaramam mu di def ay mu am benn prise de balle bu impeccable mais pour loolu tamit foog mu am du warul am benn poids bi quoi moo tax ma lay laaj wàllu lekk bi est am na ñoom benn alimentaire spécifique boo xam te war nañ ko mën di jëfandikoo. waaw waaw loolu moom loolu moom lu am la parce boo xoolee tey jii sportif surtout gardien de warul am poids. warul am pois boo xamante ni tey jii def ciy nekk mu nekk pois boo xamante ne nii pois bu koy sonal la lépp loo xam ne lu si la moom gardien da ko war a am. moo tax souvent ëpp doole bi yenn yenn yenn lekk yi dañ naan la éviter di ko lekk mais aussi ci ci ci plan d' entraînement bi am na séance yoo xamante ni boo tànk yaa ngi ciy nekk doo am problème boobu parce que force pois moom day deñ waaw ci côté boobu moom ñu ngi ciy veillé bu baax di leen wax si aussi seen alimentation ñu koy xool quoi. waaye kon ci biir ah, liggéey bi ngeen di liggéey day permettre boo ñu maintenir forme bi nga xam te ne moom la ñu soxla ci ñoom dañuy maintenir poids net la jël dañuy jël seen poids net lu bokk si ñoom ak liggéey bi bu ñëwee force dañ koy gis force force parce que tey ji boo jëlee poids boo xam ne moomoo ko boo ñëwee ci liggéey bi lenteur ngay demee lenteur ngay demee parce que da nga yéex ci réaction yeeg yëpp mais bu fekkee ni liggéey bi jaar na yoon lépp luy nekk poids day day day dañ ci yow waaw. su ma jël exemple ci benn xale rek mun naa ni Habib j'espère que xam nga ko. waaw Habib bi mu fiy ñëw ñëpp nee nañ macha allah xale bam bind bi baax na am na taay mais li ko manqué mooy dafa xaw a non sala tey lan nga jàpp ni moo ko manqué ak lan nga war a liggéey ak moom ba mu nekk un vrai gardien de but un grand gardien voilà parce que noonu xam nga bëri fi sax moom Habib rek nga souligné mais bëri fi ay certains gardiens yoo xam ne tey ji fii lañ jaar ay gardien première division yu bëri na fii nii gardien Ligue 2 beeg national fay boo xoolee foo foo tourné di gis gardien bi nga xam ne jaar na fii ci centre formation bi. ay gis gardien yoo xam ne day ñëw fii am ay faiblesse ay lacunes yu bëri te yàgg na nekk naan gardien la fekk ne dafa liggéeyul woon liggéey bi mu war a liggéey moo waral fii ku fi ñëw rek lacune boo mënta am. ñun dañ ciy veillé bu baax di xool li nga manqué pour ñu ciy liggéey ba boo demee suba dinañ ne booy bi changé na. mais ku mel ni Habib ñëpp nonchalance bi la wax nan nga def ba travail loolu léegi ñu sentir benn progression ci moom. waaw loolu ci façon de liggéey bi la rek parce que tey jii yow di nga indi nonchalance comme moom bi mu ñëwee nonchalance bi mu indi woon noonu mais aal bi aal bi ànd ci liggéey bi ba bi koy kii parce que am na si ñoo xamante ni boo tuusewul seen orgueil du ñu liggéey il faut nga tuuse seen orgueil ba bu demee ñoom nga xam ne ko après mu teeku ci mentalam moom ba nonchalance boobu denc ci moom. kon suñu bàyyi la nga tàggatoo le mot de la fin lan ngay tàggatoo. waaw mais di rafetlu di rafetlu seen taxawaay di wax ni aussi di di annoncer Sénégalais yëpp di leen wax ni xam nga fépp fu mën a nekk liggéey rek moom importance nañu liggéey te xam nga te di leen wax ni aussi benn instant Sénégal dafa manqué te li manqué aussi il faut gars yi découvrir découvrir gars yi ñu ngi liggéey quoi franchement ñu ngi liggéey yéen xam nga di leen remercier bu baax seen taxawaay xam nga di leen wax ni aussi xam nga. Euh, fi ngeen jàpp baax na quoi ngeen continuer seen liggéey di xam ne aussi gars yi ngi seen ginnaaw xam nga waaw di ñaanal xale yi ñëpp réussite quoi waaye di la ñaanal aussi yàlla télé bi xam nga mu gën a euh, Guédiawaye law ba faw dem ci kanam. yaa ngi jëf de Guédiawaye Info TV. Aujourd'hui, nous sommes à la découverte du premier centre de gardien de but en Afrique. J'ai l'habitude de dire que le monsieur que j'ai à mes côtés, il n'a pas la célébrité de Joseph Antoine Bell, ni aussi le caractère de Sersec encore moins l'élégance de Tony Mario Silva. Mais c'est un sportif de haut niveau qui a fini de marquer les esprits au niveau national. Monsieur dames, je suis avec euh, celui qui est nommé Khalifa Ababakar Fall, plus connu sous le pseudonyme de Kana. Actuellement, il est le propriétaire du centre de formation de gardien de billes Kana 00. Mais aussi, il est le préparateur de gardien de l'équipe nationale des moins de 20 ans. Actuellement, il est en plein regroupement pour le compte de la préparation de la prochaine Coupe du Monde des moins de 20 ans prévue en Pologne, du 23 mai au 15 juin. Et aujourd'hui, il nous a fait l'honneur de faire le déplacement pour que cette interview puisse se faire dans la plus belle des manières. Nous lui remercions pour cette disponibilité et sa courtoisie. Aujourd'hui, nous sommes avec ce grand monsieur qui n'est plus à présenter. Et nous sommes là pour discuter avec lui sur pas mal de points. J'étais un panorama sur le centre, mais également discuter, revenir un tout, petit peu sur sa carrière, parler de l'équipe nationale des moins de 20 ans et se projeter également sur l'avenir. Monsieur Dame, comme à l'accoutumée, permettez-moi de faire une transition dans la langue de Côte d'Ivoire. Je internautes yi dans ngi leen di ziar di ngi fi nga premier centre bi nga xamanteni ni ñu ngi ko taxawal daal koy créer en Afrique tay moom mom lañ ñëw daal koy découvrir si Euh, ki nga xamante ne moom laa am suma côté comme ni may faral di ko waxee rek euh, turam yeggul fi nga xamante ne Joseph Antoine Bell egg na fa waaye itam amul caractère bi nga xam ne Cheikh Seck am na ko amul élégance tuuti Mario Silva mais nekk na ko xamante ne sportif de haut niveau la ñëpp ràññee ko au niveau national mu nekk Khalifa Ababacar Fall ñu gën ko xam ci Kaana. Euh, tey mu daal di nekk en plein regroupement équipe nationale des moins de ans mu daal nekk aussi seen préparateur de gardien de but mu def déplacement ñu nekkoon en plein regroupement daal ñuy accordeel benn benn cette cette def déplacement honoré ñu ci sa présence pour que interview mën a am ñu koy sant baax di ko gërëm ci disponibilité te ñu ñëw pour waxtaan ci wàllu centre bi revenir un tout petit peu sa carrière daal di aussi ci l' sont de toutes les opac et de toutes les vertus du sportif sont le sport mon comprendre na loolu quoi parce que yaakaar naa ne tey bu demee ba taxawal centre di transmettre li nga xamante ne mooy savoir ak sa ak ñi nga xamante ne ñooy rakkam ba nga xamante ne ñooy doom parce que boo ñëwee ci centre trans tranche d'âge bu nekk da ko fi gis yaakaar naa il a compris que comme le disait le toute connaissance qui ne se s'interroge pas périclite euh, bépp xam-xam boo xamante ne tey duñ ko nafar rek bu yàggee mu naax saay loolu moo tax pour waxtaan ak moom kër suñu lay nuyu avant tout. waaw maa leen di fay yéen ñëpp. Euh, di nuyu sama mbokk sportif yëpp waaw di nuyu waa rajo bi mo contane na trop waa sud bi nii maa ngi leen di nuyu bu baax contane trop si liñ def nii quoi parce que lii dafa war a bon a yàgg quoi surtout comme centre bi moo fi premier centre de formation wax ma Sénégal mais Afrique bon dafa waroon tey jii affaire bi gën a am visible quoi mais maa ngi nuyu ñëpp. waaw su ginnaaw bi ngeen nuyoo ba pare tey boo ñu mënoon tënkal rek mooy Kaana Khalifa Ababacar Fall ñu gën nga xam ci Kaana wa kana mom bon duma le duma len ko présenté quoi parce que kana mom def na ni Sénégal xeyna na bon nit ñi xam nañ ma quoi parce que bon fi la def sama carrière yëpp jar na ay port ay jaraf bon jar eh, équipe nationale bon bo yalla def ma am ay fracture mo ubi centre de formation bi lool moo tax tey jii Sénégal bon club bo dem tay ji amna fa ben gardien même bu junior senior bon moy lool quoi parce que euh, tey bu mu nee ba équipe nationale tamit centre bi la tamit quoi voilà. turu Kaane bi aussi mu doon lu siiw ñëpp xam ko à travers aussi les navétanes partout mun naa ne au national lan moo andi tur boobu. waaw Kaane bi moom benn surnom la quoi surnom la woon sama xarit yi ma nekkee xale bon xëy na ni ma meloon noonu moo tax ñu tuddee ma Kaana mais Kaana bi tey jii bon du nekk tur boo xam Euh, da dama koy métti lu quoi parce que tour boobu tey jii moom muy xëy na daf maa jig ba ñëpp xam ma foo tourné boo nekk Kaana ñun la si xam mañ Kaana waaw loolu surnom la quoi mais sama tur dëgg-dëgg mooy Khalifa Ababacar Fall waaw. waaw coach bu loolu weesu aussi ñu daal di revenir ci sa carrière parce que nawetaan marque nga ci sa empreinte comme li ma wax sànq rek euh, ba sa tur am fu mu ci egg nga def ci tamit ay jaloor lu am solo tey boo mënoon revenir rek yan fee ñoo la gën a marqué nawetaan ak yan équipe nga nga ci jot a jaar. waaw nawetaan moom bon. <laughs> nawetaan chaque jour dama ko def boy yi nii booy yi may entraîné nii doon expliqué nawetaan li ma ci def yëpp am ñoo xamné fekk nañ ko am ñoo xamné ne fekkuñ ko ay xale lañ quoi mais nawetaan mom def naa ni gagné na ci lu nekk parce que ay fij mi la jaar ay amo 456 ay gunaas ay mbolo mais daal mm, macha allah nawetaan mom jël na trophée yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp jël na ko ay phase nationale yëpp yëpp jël na ko waaw yalla tamit xawon na ma sutural bo équipe bu ma dem damay nekk leader quoi man may fexé indi fa ben engouement indi fa ben confiance bo équipe bi tay jii mu dem final wala mu jël ñaari trophée sax loolu moom yàlla dimbal ni ma si woon te loolu yëpp tamit engagement la woon engagement volonté engagement moo lay wax booy nit day am volonté engagement lépp looy dugg te amoon volonté ak engagement bu yeboo nga génn si te xam ne doo am dara man lu ma nekkoon sama fort équipe bu ma dem lu ñu lu équipe bi niil niil niil niil dinaa leen motiver niil leen loo xam ne tey jii ñoom dañ dem ba gëm ni lii war na mën a nekk quoi voilà kët su waaw nga nga taxawal li nga xamante ne aussi daal di former li nga ne te ñu gis centre bi comme ni ñu ko waxtaanee sànq rek euh, progression bi nga xamante ne mi ngi koy def di def ay résultats di teg ay jéego loolu ban yëg-yëg nga ci am waaw di ko rafetlu rek ah di ko rafetlu mooy li ñu demee ba Sénégal nit nit ku ne am sañ-sañu lii li ko dégg nañ lu lii mën na nekk di former di former di former di former di former di former ba booyee tey ñeneen ñi ñu ngi international ñeneen ñi dem nañu Europe for naa fi lu formé naa fi ay Moussa Sarr ñi ngi ay Arabie Saoudite ay ñeneen ak ñeneen ay gardien yoo xam ne ay maam Abdou Ndoye fii jëleen fi meilleur gardien championnat Sénégal bi fii xam nga ay Mori Dia bi jëleen fi ay meilleur gardien ay ay gardien championnat féminin ay gardien championnat junior ay Cheikh Babou góolu Oslo bi ñoo ñëpp maa leen formé après nag la nit ne bon lii mën a nekk léegi yaa ngi gis ñoo xam ne kenn xamu leen dañuy xëy xëy xëy ubbi benn centre seen buntu kër teg seen i pulo commencé voilà am na centre bu nekk Pikine am na bu nekk Tëngéej am na bu nekk Dakar am na bu nekk feneen ak feneen gars yi léegi dañuy xëy rek jënd pulo teg parce que gis nañ centre bi mi ngi dox ñu ni bon pourquoi pas ñoom amuñu lu ñu def mën nañu ubbi centre voilà mais affaire bi tamit vécu la il nga am vécu quoi pour nga ubbi centre il faut nga am vécu il faut nga expérience parce que mooy li ma wax démb Omar Diallo nee naa leen centre waroo xëy rek ubbi ko da war a international wala nga am euh, tur ci bi ba nga àdduna yëpp xam la nga war a mën a jàngalaate mënuñu xëy rek di jàngalaate nii nii nii jàpp doomu jàmbur jàpp mooy loolu noonu loolu dama koy xeex man pour nga nekk préparateur gardien il faut être un excellent gardien de but voilà. Ah, parce que dañ gis aussi progression bi centre bi def mun na ni bi ngay débuté ama woon lii euh, ñëw ba léegi macha allah mun na ni centre bi am na ay gardien de but nombre bu bari nga daal di former ñoom teen tamit ay ay ay excellent gardien lañ léegi fu nekk ñu ngi ñu ngi fay évoluer tey progression bu lan mooy secret bi quoi. secret mooy liggéey rek man li ma xamoon moom la jàngal booy rek parce que man bi may góolu ñëpp xamoon nañ ma man bi may góolu nit mënu wax sama fort nit mënu wax sama sama sama sama faiblesse bi may góolu 7 mètre 32 yi surface de réparation bi lépp la mu koy góolu voilà man aw moon défaut man aw moon ay erreur yoo xam ne dañ doon wax lii mooy erreur am ak lii mooy défaut mooy comme ni nga ko sànq rek ay dafa gaaw a mer rek ngay ngay ngay ngay wax ay dafa gaaw a nekk nit mais kaana lii mooy défaut dóoral centre wala dóoral tirer loin yooyu nekkuloon sama défaut moo tax tey jii loolu ma doon def moom lay jàngal xale yi ku fi nekk un an wala deux ans di nga mel ni man wala nga jege ma loolu moom dama la ko wax nga dégg ko voilà. ñu gis aussi boo bu ñu ñëwee au sein du centre ñu façon âge différence d'âge bu nekk lañ fi gis tranche d'âge bu nekk dañ ko fi gis te mënoon nga wu ci benn tranche d'âge rek mais defoo ko da nga dajale formation bi da nga koy commencer à bas âge ci xale yi ba ba ci mag yi mu nekk benn progression benn cycle. waaw mais mooy li rek jàngal xale moo gën a neex jàngal mag jàngal xale moo gën a neex jàngal mag parce que mag pour nga modifier ko ni mu juddoo ak ni mu mel day xaw a metti am ñoo xam ne nag dem ba nekk mag soog fi ñëw mais pour nga modifier leen seen seen modèle bi ñu doon góoloo day a metti dina a dëgër tuuti pour nga dindi si yenn lakki ni mais dina am yoo xam ne si ñoom mais comme xale yu ndaw yi ne orange yi yi nga xam ne ñoom ay xale lañu xam nga ñooñu laa gën a am yaakaar si ñoom parce que si laa gën am faveur que di liggéey ak ñoom parce tey jii am na si xam ne fii nii bu ñu góoloo nga ne ay mag lañu parce que bi nekk xale ba léegi fi lañ nekk waaw moo tax moo tax centre bi am ay couleur nii ay trois trois couleurs gris vert noir noir yi ñooy anciens yi gris yi ñooy niveau yi vert yi ñooy ñooy deuxième catégorie bi am na tamit beneen groupe boo xam ne ñooñu comme instant bi jàng bi ma la mooy mooy orange yi ay ay ay xale ndaw lañu ay ay ay minime lañu waa ay minime pipi voilà ma nekk li ma nekk nii waa parce que for nañ ci weewu bay sax ni Joseph Antoine Bell centre bi nga xamante ne ubbi na ko au Cameroun loolu ci yow la ñëw waxtaan ceeg yow vraiment mun nañ yaa ko inspiré ci côté boobu. waaw waaw waaw fii la ñëwoon euh, Guédiawaye FC la ñëwoon ci jëmil bi mu ñëwee gis ñuy entraîné fii nii si stade bi mu ñëw ñu changé ñu toog waxtaan noonu après ma def ay euh, séance mu xool kontaan trop jël ay photo ak ñun xaw a discuter ak man après bi mu ñibbee Cameroun xam naa ay un an yooyu après xam naa.

ba tey jii boo gisee ñu entraîné tey nii si suuf si nii stade bi dafa am ay xew-xew yu fa am ay xadara xawma waaw moo tax ñu génn par des fois la la la laal tuuti sable bi pour sàrde tànk yi tuuti quoi parce que entraînement yi tamit par des fois nekk seen tig kese par des fois dañuy génn ñu dem géej wala ñu xool beneen terrain boo xam ne mooy loolu parce que Sénégal dafa bëri ay terrain différent quoi voilà coach am na loo xamante ne duma la ci mënuma la cee ñàkk tooñ muy complicité bi yàgg yàgg xale yi parce que même ku ci am match nawetaan dañ lay gis stade bu defee action boo xamante ne yow apprécié woo ko nga daw ci ginnaaw camp yi daat koy wëlis mais wëlis boo gën a jaaxal ñëpp loolu vraiment lan la quoi signe boo leen tàmmal la wala waaw loolu loolu mooy côté centre bi côté bi la booy bu nekk seen biir kër yi sax suñu déggee wëlis toog wëlis la nga xool ñu di nga xam benn secret boo xam ne yéen ñaar yéen ñaar koy xam man du jar may wàcc may dem si suuf yooyu damay taxaw expliqué fu ma am góol su ma wëlisee dinañ xam kaan la lu mu war a wax. mu doon loo am moom lañ naan communication gestuelle du jar ngay wax à travers say gestes rek di nga mën a communiquer ak ñoom. voilà sama geste rek su ma xam centre bi nga war a génn jël su ma wëlisee di nga xam ni dégagement bi moo baaxul su ma wëlisee di nga xam ni sortie bi moo yéex su ma wëlisee def kii di nga xam ni prise bi nga def ba moo baaxul. soo war a def faute moo moo wëlis li nga xam ni li nga war a def sànq moo mooy booy daal instant bi mooy loolu quoi nekk na ay xale yoo xam ne déggal nañ ma te xam nañ ma bu baax commencé nañ ma maîtriser quoi. Hmm. waaw coach su tey aussi mën naa ni toll nga ci benn niveau boo xamante ni 45 ans su ma juumu la ah, euh, nga am 45 ans euh, nekk sportif tamit vraiment di ci bay sa waar tey buñ la laajoon sport bi est-ce na la wala fayu la sa niveau sa niveau sa statut social. waaye maa sant yalla bu baakha baakha baax a baax sport bii nii maa sant yalla bu baakha baax parce que tey jii su ma ba am yenu tour yi ba Sénégal ñëpp xam sport bi la loolu rek alal la fo duggu fo duggu ñu ni kana fo duggu problème bo am lu ñu lijeenti ko man lool rek mo taxoon mo gëna mëna di ray sam bop parce que tey jii am naa si tur am ci ay doom adama yo xamé ne tey jii servir lu ne maa sant yalla bu baakha baax baax parce que man duma moniser duma soudeur duma peintre sport bi say lek say nan say naan si lay am yep ci sport bi ko am voilà même Kër Massar suñu kër gëlee ci esport bi laa ko jënde kon maa ngi sant yàlla quoi waaw am na ñoo xam ne nag day yaakaar ñun dañu ci nekk nii rek kërëng kërëng man du dem fenn du ma cas social fool bi moo may fay moo may defal lépp lu mu war a def voilà. kon su kàddu yi am na solo le mot de la fin lan ngay tàggatoo ak lan ngay ban message ngay lancer à travers la population sénégalaise surtout xale yi nga xamante ni bëgg na ñëw rejoindre centre bi gardien yi nga xamante ni nekk gardien bi nekk na seen seen xel ñu bëgg a aussi. walau lah boy fi booy fii nee naa leen réussir am plan A am plan B boo nekkee ci sport bi nga dem wuti métier su wuti métier jàpp ci so ame blessure wala dara nga dem tourner nek sa métier su dee yàlla may na la ba nga réussir ci sport bi tamit ñu xam li lii moom nga bëggoon mais nit warul am benn métier. voilà da ngay def sport étude wala nga dem wuti métier boo jigee entraînement nga dem jàngi bàyyi taxawaalu sportif du ànd ak mbër sportif du ànd ak kat sportif sportif lay andal, boy waxtan ci sport nga wara andal àndal sportif pour nga réussir ji boy lek wala ngay nan ci sport rek nga wara a dund moom la mom moom lay wax boy quoi bo di len euh, féliciter ñom ñep nak volonté bi ñu am di teel yow di ñew fi voilà ok merci wa bok antono di ñi ngi ak ben gardien de bi bu nek ci centre bi mën na ni bam fi nekké yag na fi bam nekké xalé ba légui mi ngi fi di formé wu ñu tagat euh laxat ñay ñu gën ko xam ci kana euh, gardien ma lay nuyu le grand gardien waaw maa ngi lay fay. centre bi kañ nga fi ñëw kañ nga fi commencé entraîner. centre bi yàgg na torop parce que mënuma rappeler kii bi quoi date bi mais centre bi daal lu ma mën a wax mooy ba ma fiy njëkk a ñëw yàgg na torop parce que nekkoon naa fekk ak ay góol yoo xamante ne ay góol yu mag lañ yàgg na trop depuis Kër Massar yàgg na torop fi ñëw kon xale mu ndaw nga jotoo sa joué cadet. ba ma fiy ñëw jotuma sa joué cadet boobu xale laa lu nekk ci man rek moom moo ko def ci man. waaw moo fi ñëw yàgg na torop loolu yàgg na depuis ay Pape Demba Camara buy bu doon góoru ancien gardien international la woon mu ngi soso quoi fa la nekk France ñooñ laa fi nekkandoo ay ñoom jaabi dukkure affaire yooyu ñooñu laa fi nekkaloon daal ay ancien gardien laa fi nekkoon mais 2012 daal laa gën a rappelé la centre bi gën a commencé am doole boobu ñoo ngi entraîné terrain Ndiarème mais centre bi ñoo ngi ko ubbee Kër Massar fekk boobu maa ngi gën a nekk xale am ay ay ay ay ay onze ans yooyu waaw. turu kaana bi lan moo ko andi. turu kaana bi li ko indi mooy 2009 dama dama damaa yi woon 2009 sama kër maam euh, Kër masaar ma gis ko foofu nag fekk maa ngi doon dégg fii turam en 2005 temps yi mu ngóolu amoo ma dégg nag turam affaire yooyu ci laa commencé di di def ci moom royukaay di roy ci moom di roy ci moom ba far ma vacances Kër masaar naka dem maa moom ñoo bokk. ben koñ bimanek nek après si commencé dem ci mom di féré dem ba mujj gi vacances 2009 mujj gi ma dem seen kër vacances yi mom nak yaayam bëggal ma bopam def ma comme sëtam mom dem mu jël ma def ma comme jarbaatam ma def ko man sama nijaay ma nek ci moma yar dal yar daal mun naa daal mun naa depuis 2009 ba légui man moma yar mom la xam lu mën nak ci góol tay mom la lu mën mom la diko ñaanal yalla nako yalla may wër équipe nationale U20 bi mu yor yalla nako yalla defal pour ren coupe du monde bi muy préparé yàlla na ko yàlla may ndam yàlla na ci finaalu jël ko indi ko Sénégal parce que ñun ñëpp Sénégal lañ am te ñun tamit waa centre bi di wax booy ñun ñëpp ñu gën a góorgóorlu parce que tey li mu yor tey ñun ñi ku ci nekk mun nga am sance mais nag ci kaw nga liggéey boo liggéeyee rek di nga fa dem mais boo liggéeyul amul kii sama booy la amul dara waaw parce que moom liggéey rek la xam moom xamul caaxaan xamul dara sama turandoo du ma duma ma du faral daal ci loo xamante ni lu ko neex la moom bu ma nekk ci yoon danaa ma nekkoo ci yoon moom noonu la mel ku ko gis da nga naan dafa compliqué mais compliqué wul dafa dëggu c'est que lu muy wax chaque jour Sénégal ñun ay détails moo ñu moo ñu sonal moo ñu tardel ay détails waaw ay détails moo ñu te loolu mu wax moom moo moom moo am waaw moom moom ku topp ci ginnaawam def ko roykaay looy dugg di ko xamal booy def dara di ko xamal doo sonn mukk doo sonn te dina la xelal comme sa papa ak sa yaay lu mu lay xelal amuñu fayam nak wa deug kon mun japp dang ko yag fan mu yag la inspirer loolu mo andi turu kaane bu loolu weesoo mun japp ni mom moy sa idole fi Sénégal mais au niveau national international euh, gardien ngam te ya len gis comme ay Neuer Ter Stegen ku ci melni ay euh, euh, vraiment donc alison Becker ñan ñoo ci kan ban gardien mo ngam xam moom suivre mu nek go am te vraiment dang ko dang ko bëgg kan man bu fon dal lay xol diko diko diko diko bëgg bu baaxa baaxa baax ak ak ak Tere Segen Tere Segen dama ko bëgg torop dama ko bëgg moom dama ko bëgg mais daal man sama roykaay moom kaana la kaana man mooy sama roykaay mooy sama roykaay xëy na dafa amul sens mais ñoo ñëpp pour man moo leen daaku góolu kii gisuma ko góol daaku góolu man ci ci ci monde bi laa wax xëy na sogom beeg yooyu moo tax tey eggul foofu mais heure bi waroon na ko fekk ay ay juve muy nekk foofu fekk carrière di heure bi waroon na ko fekk foofu parce que moom loolu moo nekkoon rêve am ay juive ay rome laay dégg muy wax heure bi waroon na ma fekk foofu mais lii tamit bu ko dal woon sogam bi si tàngam bu ko dalul woon kon heure bi kenn waxatu ko fàtte nañ ko kon heure bi suul nañ ko barki yàlla mais nag yàlla na ko yàlla fay xolam. bokk internet yi loolu moo doon waxtaan bu am solo bi nga xam te ne nañ ko ak le grand Kaana Khalifa Babacar Fall ñu gën nga xam ci Kaana mu doon ko xam te comme ni ma ko waxee rek waaw naam bu dee euh, turam eggul fenn fi au niveau international mais au niveau national ñëpp xam nañ ko parce que yàgg na bay waaram euh, nekk ko xam te ne marqué ci wàllu football nekk un gardien de but boo xam te kenn doot ko présenté weesoo ñu def nañ benn euh, petit donc repli si carrière am ah, daal wax aussi ci li nga xam te mooy équipe nationale mooy de vingt ans yi ñu ngi dëgmal coupe du monde nga xam te ne 23 mai la war a commencé daal jeex le 15 juin mu nekk préparateur des gardiens de but loolu la mu daan nekk ko xam te vraiment euh, nekk na ndaanaan kenn doon ko présenté doon ko gëm yàlla aussi parce que mun nañ ni après bi nga xam te dem na championnat joué port liggéey ba tey mu am lii mu am am aura bi am respect bi nga xam te moom la am ak cër bi nga xam te moom la am ci sport Sénégal loolu daal lañ leen andiloon di leen sant di leen gërëm tey Guédiawaye Info nii la defoon parce bu ne sport rek de manière générale nekkul ci làmb kese lañ jëm des ñu daal dem visiter yeneen forme de sport yi nga yeneen discipline yi nga xamante ni ñoo fi am loolu le monde va nous faire comme ni le faral quand c'est important c'est sur c'est Info càndub woon euh, le cadet des journalistes le cadet des reporters caatu reporter de l'ensemble des di leen gërëm di des suma technicien l'incontournable Bekay